ñoo sos bile pétition ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars bi ñu nekk ngir ñu daal di ko ci boole écrivain bile li xew fii ci réewum Sénégal lu ko yitteel la ndax jàpp na ni fii jamono jii ñu ngi salfaañe ak ak yelleefu doomu aadama yi jël nag justice di ko jëfandikoo ci mbirum politique lu ëpp. téeméeri intellectuel yu fekk baax fi juróom réewum Sénégal ak bitim réew xaatim nañu boobule pétition nga xam ne dañ ko jagleel président de la république Macky Sall muy ay enseignants ay taskatu xibaar ay stylistes sociologues ñoo xam ne dañu bokk ci ay mouvement associatif ay mouvement sportif ak yeneen intellectuel yooyee boole nag seen kàddu mu doon benn li ñu bëgg mooy Macky Sall delloo si xelam ki jël prix Nobel de littérature ci atum 1986 nekkit bindkat bu ñuul bu njëkk bi nga xam ne moom la ñu njëkk a sargal di doomu réewum Nigéria Wole Soyinka dëggal na ni moom ci boppam dafa tukki woon moo tax mu yéex a jot boobu la demande de signature waaye nag bi mu ko liiree ba noppi càmbar ko bu baax a baax la daal di woo ci saa si ñi sos boobu la pétition ngir ñu boole ko ci. AGT News.